رسول الله خير الأنام ما وخل لله بسم الله ما وخل لله رسول الله خير الأنام ما وخل لله بسم الله ما وقت الله رسول الله خير الأنام ما وقت الله بسم الله ما وقت الله رسول الله خير الأنام ما وقت الله قالوا بسم الله ما وقت الله رسول الله في خير الأنام ما وقت الله قالوا صلاة ربي على الحبيب عن الوسام بمع سلام على الحبيب قالوا صلاة ربي على الحبيب عن الوسام بمع سلام على الحبيب قالوا صلاة ربي على الحبيب عن الوسام بمع سلام على الحبيب على الحبيب xaluk ma jóg ca jéema xamle ci mbar ma amar wayal ma ki gën ci réew mi falu alal xabiib xaluk ma jóg ca jéema xamle ci mbar ma amar wayal ma ki gën ci réew mi alal xabiib alal xabiib Ribalu punya kenule, jidat dende. Hijana khande mo gencire me. Lan nabi bi. Ribalu punya kenule, jidat dende. Hijana khande mo gencire me. Lan habib. Ribalu tinge na denu, tinge madu. Alhaji Fallu na xundire me alal habib Ibalu jege na denu ci maju Alhaji Fallu na xundire me alal habib Ribalu buri ala yana, lu ma dabaax na, Ribalu def na njariñ ci réew mi. Lu ma dabaax أخ الرجال أخ الرجال الذي فلل القمال أخ الرجال نمنا لا بشري أخ الرجال أخ الرجال الذي فلل القمال أخ الرجال نمنا لا بشري القمال أخ الرجال Alaaji Falilu mu mën ci góor ñi mu jiite gaañ ñi liggéey ju maaje jébbal ko réew mi mu jiite gaañ ñi mu jiite gaañ ñi mu borom dindi mu mën ci góor ñi mu jiite gaañ ñi liggéey ju maaje jébbal ko réew mi mu jiite gaañ ñi mu jiite gaañ ñi mu borom dindi mu mën ci góor ñi mu jiite gaañ ñi liggéey ju maaje jébbal ko réew mi mu mën ci góor ñi mu jiite gaañ ñi mu borom dindi ana ko waaw ba jéggi daafa juróomi sooroor yombul ci réew mi waaw ko bu jëkki daafoor alaaji falilu na ko waaw ko bu jëkki daafoor juróomi sooroor yombul ci réew mi waaw ko Sëñ Fallu Mbàkke mu borom dindi juma ji maat na ona bi ñëw na ndox mi waa na tuba di réew mi juma ji mat na mat na kuréel na tuba mu borom dindi juma ji maat na ona bi ñëw na ndox mi waa na tuba di réew mi juma ji mat na hora bi ñëw na hora bi ñëw na lalu ilia xaala ala yami laji faalo defar na réew mi ala yami lalu ilia xaala ala yami laji faalo defar na réew mi la yamin ndalu ini akala la yamin la jifala defar na réew mi la yamin la jifala musa ci dindi def ci dindi Kuréel mu ginde xamal réew mi falu sa ci dindi di dëpp di dindi falu borom dindi mosa ci dindi di dëpp di dindi kuréel mu ginde xamal réew mi sa falu sa ci dindi di dëpp di dindi kuréel mu ginde Alaaji Fallu baatin barey na nga ne la feeñ na ba xam nga siiw na bégal ne réew mi nga ne la feeñ na ba xam nga siiw na Alaaji Fallu la Seex Fallu ñëw na ab laaj ñëw na xewale daay na na fu indi réew mi. Ablaye di ñëw na Ablaye di ñëw na Alaaji Falilu si Falu ñëw na Ablaye di ñëw na xewal yi doy na na fulli réew mi Baye Cheikh mu dugg si Tumbara Basiru Murtala Alaaji Falilu daq na xiif bi rodi na raay bi باسم ربي لبوتري يومي وفلاجي وفلاجي اللاجي فللو دقنا رابي ونيوم مسلي فسقتي بيلي دفرن ريومي وفلاجي وفلاجي وفلاجي Alaaji Falilu moro ci soda xana biida jido na keemaan mu ci réew mi noflaay bi ñëw noflaay bi ñëw na Alaaji Falilu gisal njëreer yi maa ñëw ci tool yi woo leen ko aaye ban génn réew mi Yeah. Naflaay bi ñëw na naflaay bi ñëw na Alaaji Fall rusloo na waa ak sa waaye du jàmbat sa fallu daamat mataale réew mi naflaay bi ñëw na naflaay bi ñëw na xéwal yi bëri na ko Alaaji Fall Seex Fallu Mbàkke daraam du manqué di denc banque daa fon kuréel du manqué du manqué Fallu borom di lii Seex Fallu Mbàkke daraam du manqué du denc banque daa fon kuréel du manqué du manqué Alaaji Falilu du dog di yori sekk lu ñëw mu fàtte di xaar lu jot na mu def ci réew daram du manqué du manqué Alaaji Falilu ku jooy mu naax la ku mer mu muñ la ku am xoram la jàmmal na réew mi jàmmal na réew mi daraam daraam du manqué lu ngi li ku xam mu feexal ka daana seexal yi waaye woomal dajal na réew mi daraam du manqué daraam du manqué Alaaji Falilu kun ma faqiiri jabrun kasiiri jiitu aqiiri rereeme jabrun jabrun kasiiri Alaaji Falilu kun ma faqiiri jabrun kasiiri jiitu aqiiri rereeme Jabrun kasiiri Alaaji Falilu kun ma faqiiri jabrun kasiiri jiitu aqiiri rereeme jabrun kasiiri jabrun kasiiri Alaaji Falilu góor na jirim yi du dundal na faqiir yi dafa nangool yi moo fan kuréew mi jabrul kasiiri jabrul kasiiri alaaji falil jirim yi tiit na miskin yi loof na falu dem na jooyloo na réew mi jabrul kasiiri lu borom dindi jirim yi tiit na miskin yi loof na falu dem na jooyloo na réew mi جبر كثير جبر كثير هلا جفل الجرين يتيتنا مسكين يلو أفنا يا فلو دمنا جويلون ريم عندما كجيت لنا عندما كيا هلا جفل ينيد دينو فندي دجوب ka say di faat lu faat na réew mi lu ko siiri alaaji fal yéen ñi di déglu bu ngi ci jublu ka say di faat lu faat na réew mi jublu ko siiri jublu ko siiri alaaji fal daa am jaloore bu dox di waare bu dox di waare yaram na réew mi جبل كثير هلا جفل أم جلار بدك ددار بدك دوار رم نريل جبل كثير كثير البرم دلي دوخ دقات وخر بخدي ود مسيد فنريل جبل كثير جبل كثير alaaji falilu ku wax sa soxla ku jox loola la ku toñu baal xajoon réew jublu ko si alaaji falilu du doon jànni ku tëj mu génne lu bon mu sànni feexal na réew jublu ko si jublu ko si Alaaji Fallu du doxul di gaayo du mer du fayo ku ñëw mu waayo yaa tan réew sa Fallu Mbakke sa Fallu Mbakke sa Fallu Alaaji Fallu du yàgg yaaka um ca di doxa mooy barul anwaar leeral réew jublu ko si situ yaqin alaaji fallu du yàkki yaaka um situ doxa leeral leeral réew jublu jublu ko siiri alaaji fallu ju dudu xaasa yàlla beeto lum xewle woo te safoon réew mi jabru lu ko siiri alaaji fallu ju dudu xaasa daf yàlla beete lum xewle woo te safoon réew mi jabru lu ko siiri alaaji fal mu xam te raala te fonk war ga amu yaraala bi ahli réew jabrul kasiri jabrul kasiri alu borom dindi nattu rëy la ku xirte yiw la ku ñëw mu jox la safoona réer jóg ka ci réer alal borom dindi ku jox sa saaba ñu toloo la ku ñëw mu jox la sa muur ci réew mi ak bu réer ku xirte yiw la ku ñëw mu jox la sa muur Alaaji Fallu muñ ta feex muñ ta sa siiw la ku muñ mu mooy la sa foona réew Yuru ko siiri yuru ko siiri Alaaji Fallu muñ ta feex ku sañ ta siiw la ku foñ mu mooy la sa foona réew jëbbul ko siiri Alaaji Fallu du wax di maatu du dox di geestu kii la kayaatu dajal na réew mi Cheikh Fallu Mbakke Alaaji Fallu du wax di maatu du dox di geestu kii la kayaatu dajal na réew mi Cheikh Fallu Mbakke Alaaji Fallu du daw du diis du dodo biit du wax lu ñaawi jàmmal na réew jaburin burin ko siiri Alaaji Fallu du daw di siisi du dodo tiiti du wax lu ñaawi jàmmal na réew du daw du siisi du daw du tiiti Alaaji Fallu man na laabi du dañ sunuy lor te neegu sunuy gor li war na réew gi jëbul ka siiri jëbul ka siiri Alaaji Fallu am na la laabi du dañ sunuy lor te neesu ko i gor li war na réew gi Jibril Kasiri Jibril Kasiri Alaaji Falilu musilli baaku bu dee bakkeeku li jar na waay ko xamal ko réew Jibril Kasiri Alaaji Falilu kawe na kaw la lu wér la ji wax ku weddi ji wax da ko ci réew jabul kasire alu borom ni ni Seex Fallu Mbàkke defar na Mbàkke tabax fa jàkka mooy nji ci réew jabrul kasiri Mbàkke Seex Fallu Mbàkke defar na Mbàkke tabax fa jàkka mooy nji ci réew mi Alaaji Falilu Fallu defar na Mbàkke tabax fa jàkka tabax fa jàkka mooy nji ci réew mi Seex Fallu Mbàkke Jabul Gasir Safalu safalu Mbàkke defar na Mbàkke tabax fa jàkka mooy nji ci réew mi Jabul Gasir Alaaji Fallu di def ci jaaka daa fonki rakka dem na ba maa ko yóbbaale réew mi Abdul Kasiir Alaaji Fallu jël na jëmmam ji dimbal ma gam ji mu jëkk aji ajaale réew mi jël na jëmbal ji jëmbal ma gam ji si mu bu mu dafa Mbakke Alaaji Fall moo raw ci soodaan jaaxal na bii daan ji doy na kéemaan amul ci réew mi jaaxal na naari ci doy na kéemaan Alaaji Fall moo raw ci soodaan jaaxal na bii daan ji doy na kéemaan amul ci réew mi bii daan Alaaji Fallu ci doy na kéemaan bu ci réew Fallu borom dindi ci doy na kéemaan bu ci réew Fallu borom dindi ci doy na kéemaan bu ci réew Fallu borom dindi ci doy na kéemaan bu ci réew Fallu borom dindi ci doy na kéemaan bu ci réew Alaaji Fallu moo jar di neexal moo manta xeexu lewet na soofu moo raw ci réew mi na bii daan ci doon na Alaaji Falilu sa samba booyul te mbay ma ñaaw lu ñor mu jebbal baayam ci réew mi barak Basiru Murtala Alaaji Falilu jebbal na baayam léppam te yor gëm ki lay ko am jom sa soo na réew mi jiite ganaari makka ya indi xam na xam na la bañ Alaaji Falilu xañul di iñaan du door du seetaan lu weesu Rahmaan moo dëddu réew mi axal na bii daal Alaaji Falilu xajul ci iñaan du war du seetaan lu weesu Rahmaan moo dëddu réew axal na bii daal Alaaji Falilu yara ki teggin la jànge baasi amoon na baati moo raw ci réew mi yaxal na bii daal Fallu borom dindi sagal ustaasam di déglu baatam moo doon maamam jigéen ci réew mi yaxal na bii daal Fallu borom dindi alay salla rabbun ajalla te may nu maala njaboot ci réew mi Alla bii daal ci doon na kéemaan. Alaaji Fallu Fallu Sariif la sëtu bu yoneen la te lii du xiilaat yi war na réew mi sëtu bu yoneen la Fallu borom dindi Fallu Sariif la sëtu bu yoneen la te lii du xiilaat yi war na réew mi sëtu yoneen la Alaaji Falilu Fallu Sariif la sëtu bu yoneen la li di xiilaat li war na réew mi Fallu Sariif la sëtu سجل لا تلد خلا الذي فلل فل سريف لا ستوب ينال تلد خيل لي وفريو Cheikh Modou Fadal lu wax mu mokkal moo raw ci réew mi maamul sërif la sërifun bunnu sërifun sërifun bun sërifun kiima dublu alaaji Fallu baatam ba neex na gisam ba leer na xelam ma jub na moo raw ci réew mi gisam baleer na xelam ma jub na moor ci réew mi batam baneex na gisam baleer na gisam baleer na batam ba neex na gisam ba leer na gisam ba leer na Sëriñ Fallu batim ba neex na batam ba neex na gisam ba leer na Sëriñ Fallu batam ba neex gisam ba leer na xelam ma jub na jub na xelam ma jub na moo raw ci réew mi wax nañ ñu njoolul wax nañ ñu gàttul góor gu sembal safoon na réew mi wax nañ ñu njoolul wax nañ ni gàttul góor la gu semmal su fana réew mi moom daa palaase yàlla ko peese jukkoom du sanse ñu góor a ndaw mi sëriñ Fallu yàlla ko màggal yàlla ko teddal ku yàlla góor fal nga man ci réew mi te maa ngi taxawlu alaaji Fallu ndamam bu suulu na fundi réew mi te jii ma jox ko ku lii ta ñaan ko lëggantatal ko amiina réew mi lu des ci way wi maa jum ci way wi moo gën ci xeet wi lii war na réew mi ndegeen xerawlu ma dellu yeesal tan bokk woolu njukkal ci réew mi ma wax la taaw ba moo doonu baay ba seetal ci Bamba noppal na réew mi ma wax la taaw ba moo doonu baay ba seetal ci Bamba noppal na réew mi rafet na xam-xam doyloo na boroomam te fonku maamam ci njiit ci réew mi rafet na xam-xam doyloo na boroomam te fonku maamam ji jiite réew mi te am na pasteef mënee su ko fif du jaawalay jëf xamee na réew mi du kum werente du kuy werente ka gëdda santi dafay bijjanti ku soññ réew mi li yàlla digle lay xëy di fàttali booleeg di xam le njëriñ ci réew mi sëriñ Moodu rafet na am xel tërëy na ak xol ku bon mu baaxal xajoon na réew mi ku bon mu baaxal xooleen ci man mi ku xeebu laa woon ku soofe laa woon góor si ma xëy woon baatin ci réew mi ku xeebu laa woon ku soofe laa woon góor si ma xëy woon baatin ci réew mi bu seex yi doon mbër bu seex yi doon mbër ma def ko saa mbër ne moo ma wan mbir ma waa ko réew mi daa xir te man gan Seex Moodu daa xir te man gan doonul ko sàggan baay baa ko jox kun bàyyi ko réew mi Seex Fallu Mbàkke Seex Moodu Mbàkke moo jar di fekki daraam du manqué noppal na réew mi daa moom te yaatu moo yaatu mbootu bun na njabootu baayam ci réew mi Cheikh Moodu bot na njabootu baayam ci réew mi Cheikh Moodu bot na njabootu baayam ci réew mi jikkoom ja tuutul xelam ma ñaawul woyof na diisul noppal na réew mi mooy gor su maandu te xam lu jaadu ji waay du waandu noppal na réew mi du xotti saatir du yàqaab der jox naa ko saa mbir moo gën ci réew mi na yàlla fay ko jëfam te may ko xéewal te yokku leeram ci réew mi na yàlla fay ko jëfam te may ko xéewal te yokku leeram ci réew mi te yokku leeram ci réew mi te yokku jëmmam booleeg rakam te yokku jàmmam booleeg rakam te dàqi noonam ba génn réew mi salaa sali wa sallim ala mutaalim bi jaahi xaadim amina réew mi sali wa sallim ala mutammim bi jaahi xaadim amina réew mi sali wa sallim xalal mu tammin bi jaay xaadim amin réew mi Cheikh Moustapha fondoma Cheikh Falilu matal Cheikh Abdoulaye yokk naa yokk naan sant leen Serigne Saliou matal na jëmbal la Cheikh Moustapha fondoma Cheikh Falilu matal Cheikh Abdoulaye yokk naa